fait euh, man des fois sama xel dafay dafay dal ci benn mbir ci en tout cas ci Ousmane Sonko xam nga kàddu bi génne na fi souveraineté génne na fi euh, meilleure gestion de nos ressources génne na fi réforme des institutions IPP dans le mais Ousmane Sonko lii moo tax li ko dal dal ko yëpp. Et depuis qu'il a commencé mm-hmm. Les autres ont compris et que les autres ont adopté. se rendre compte que li mu wax loolu moo fi nekk. mais parce que wax dégg ko naxante ba falu moo gën fetalante parce que naxante bi man naxante bi rek laay jàpp parce que pour pour dire que xam nañ ni peuple bi lii la ñu bëgg moo tax ñu bëri adopté wala euh, épouser du discours Pastef wala discours Sonko donc ñoom dañu leen di fekk si ci loolu mooy. élection yi leer na ma ni amul candidat buy campagne te waxul justice dañ koy réformer du am Sénégal. waaw mais loolu nag xam nga en réalité dañ ci waral dañ ci war a soo Sonko ci lu bari il l'a porté douloureusement et il n'a jamais yi sur ça au moins loolu ñëpp nangu nañ ko xaarul ba affaire yi am na mu demee mu koy wax il a toujours vécu comme ça depuis mu duggee ci politique loolu lañ ko mës a xamee muy dugg bi mu duggee ci politique loolu bis ko la mës a porté. loolu mooy wane ne ndekete lii dëgg la parce que finalement ñëpp wax nañ la même chose. Mm, mm. maintenant li des mooy li des mooy mooy am solo à mon avis mooy euh, xam nga le discours est une chose mais euh, euh, disons la mise en œuvre. c'en est une autre c'en est une autre oui. donc population yi ñu war a def attention mooy puisque maintenant tout le monde dit la même chose. Mm -hmm. quelles sont les mesures qu'il faut porter pour mettre en œuvre cette te loolu mënoo ca génn ki nga xam ne daf ko wax ba mu jaral ko. waaw mais kooku mu ngi kooku mu ngi kaso bi danga fàtte. ah non non non non kooku il participera fondamentalement d'ailleurs sa personne oui mais le projet qu'il porte qu'il a défendu pour lequel il a toujours parlé et là il sera représenté te loolu mooy la am solo en fait loolu aussi dafa am benn dimension bu ci génn ki ki comme il disait le doyen tout à l'heure bu kuy personnaliser mbir il aurait pu mais gis nga bi mu demee ba xam ne y a une probabilité xam nga disposition yu mu jël. Hmm. ginnaaw bi mu waxtaanee ak ñi mu àndal. pour s'assurer que le projet sera sauvé. Hmm. sa à dire même si si lui lui dans le arrêté que le projet soit sauvé. Hmm. xam nga yàgg na discours bu koy wax. mais daf ko jëmmal li ñu gis ko bi yoon. ok voilà un peu la différence entre cet homme et beaucoup d'autres.